asalaamaaleykum chers amis ziar naa leen bu baax a baax amat mbégte ak contentement fas yéene àndaat ak yéen d' balaa maa commencé dara dama leen di bu baax a baax a baax ci riposte yi ci ñaari épisodes yi jot a jàll gis nañ commentaire yi gis nañ ah, gis nañ messages yi gis nañ lépp ci commentaire yi am na ñoo xamante ni sax jaral na leen ñu jël seen téléphone def appel woo ñu apprécier concept bi waaye itam jox ñu seen i ay xalaat jox ñu seen ay suggestion franchement loolu euh, mbégteel la dangu lañ ciy am donc euh, tey nag suñu épisode 3 dafa nekk loo xamante ni si spécial lay doon interaction yi ngeen def à travers vidéo yi ñu jot a def moo waral am ñu ñëw fas yéene jàpp ci combat bi am ñu ñëw fas yéene ñëw épaulé mu di ñan les annonceurs mu di ñan les sponsors kon am nañ sponsor am nañ annonceur koo xamante ni si daa fas yéene ñëw jàppale ñu bu ko defee ñu daal di gën a mën a wutal Euh, gën a amal doole li nga xamante ni moom moo concept bi kan la Business Company moom ngeen gis nii kan mooy Mourchid Business Company MBC ñoom nak entreprise la boo xam entreprise bu ama am solo ci lan ci li nga xamante si moom moo di daara ji waaye ci nit ñi ak njaboot gi entreprise bi li ñuy def euh, waxtaan bu bi amal wala programme bu bi amal di ngeen leen fa gis moo xam ci Dakar peu importe ñoom nag bu ñu ñëwee li ñuy liggéeyee mooy dañuy def ay njaay ah wala ay togg ak yooyu noonu di ko jaay ci biir nit ñi ay naan ak yu ni mel léegi loolu nag euh, revenu yuñ ciy am xaalis biñ ciy am ñoom lekkuñu ko séddewuñ ko ci biir daara ji lañ koy delloowaat très important liñ ciy am dañ koy delloowaat ci biir daara ji bu ko defee nit ñi dundaat ko seen biir kon loolu vraiment c'est à apprécier aussi ñu jara may doole lan MBC ñoom daal ñoo fi nekk nañ leen soutenir ñëpp ci loolu nag may nañ ñu ay cadeau yoo xam ne dañ ko war a jox yéen internet yi yéen followers yi TikTok dina fa cadeau YouTube dina fa maye ben cadeau alors cadeau yi nan lay mel surprise lay don ah, parce que cadeau bu ko rek cadeau légui nak naka la koy mo y xam poser une question question bi kuko tontu di nga am cadeau question bi lan la dafa am Cheikh Ahmed Tidiane capitaine wax lan yalla ken du fa dem dañ fay delu yalla ken du dem dañ fay euh, alors légui lima xam ci wax bobu capitaine fan la ko ban programme ak euh, bu dee Colisée la bu dee euh, bu dee checkpoint la bu dee gàmm la bu dee tournée la fu mu mën di doon ngeen wax ma ban programme bi léegi programme boobu moo ko doon wax thème bi lan la en plus euh, amoon na sous-thème je pense sous bi lan la woon commentaire bu ëpp le détail moom mooy gagné li nga xamante ni moom moo di cadeau bi moo xam TikTok ak YouTube kon restez scotché ngeen daal di topp activité bi ngeen commentaire mën a gañe ci cadeau yi TikTok dina maye ben, YouTube dina maye ben. yéen ñi nga xamanteni bëgg ngeen ci cadeau yi gaaw leen def loolu ngeen ngeen interagir bu ko defee ma may leen bu leen fàtte nag NBC Mourchid Business Company moo ñuy gunge saa su nekk ñeneen ñi ñu ngi ñëw dañoo accès ko bu ñu accès rek ñu ànd ak ñoom chers amis c'était tout pour aujourd'hui on vous donne rendez-vous très prochainement ci beneen numéro beneen épisode ak borom xam-xam bi nee na alors ñu def noonu ba beneen yoon